nekku ne li ma sant Mbàkke moo tax nekku ne li ma nekk sëtub Sëñ Tuubaa itam moo tax waaye man seetuma damay gis waaw seetuma damay gis parce que ba ma nekkee xale am juróom benn at laa tàmbale woon di gis te loolu noonu yàgg na sëñ sëtu Sëñ Tuubaa yi waaye maa ngi lay maa ngi lay waatal si màggu suñ borom bi képp koo xam ne seetal naa la te gisuma la bu doon da boo ma envoyé woon xaalis retiré waat ko képp ko xam ne nar naa laa seetal te te te gisuma la yàlla boo ma jot sëriñ bi nga nekk sëtu Cheikh Abdou Borom dër bi nekk sët ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ngay def ay kiraama ci réewum Sénégal vidéo bi ñëpp di ko partagé nit ñi nan la da ngay magique lan ngay wax ci loolu waa kay sëñ Fallou man moom alxuraan képp laa xam waaw te si laay te si laay def di si dindi te si laay seet itam waaw te si laay seet itam maanaam sa turu sa turu yaay nga may jox ak sa turu waajuru góor ak sa ak say at nga foto sa tënk loxo bii nga envoyé ma ko yow fotol sa tënk loxo bii rek nga envoyé ma sa tur ak sa turu waajuru jigéen ak ñaata at at nga am nga envoyé ma ko sama whatsapp bu ma wax dara lépp la lépp loo xam ne nekk na ci yow mm-hmm. moo xam feebar la mm-hmm. moo xam nga ngay wuti dara mm-hmm. moo xam lu war a dikk moo xam lu la weesu lépp dinaa la ko wax ci kàttanu yàlla waat naa ci yàlla ne bu ma la seetalee li nga weesu dinaa la ko wax li nekk sa kanam dinaa la ko wax buñ la mu liggéey sax dinaa la wax ne la diw moo la liggéey allahu waaw su ma la seetalee sëñ Fallou nit liggéey la dama lay génneel turu turu kan la liggéey man sëñ Fallou nee naa la seetuma damay gis. ndax ba may nekk ci daara ja laa tàmbalee gis. képp ba pare génnaloo lay say sarax. Mhm. te sarax bu ma lay génnaloo soo ko defee. Mhm. say mbir fa lay jaaree tàkk ba faw